madame la ministre maa ngi félicité fii nga toog nii war nga fi toog parce que fi nga toog nii war nga fi toog parce am nga fi nga toog nii war nga fi toog parce que engagement détermination ci parti bi ñëpp xam ni duñu fàtte mukk jour bi président Macky Sall di ñëw ñu koy mitingal Dakar ñu nga ko jëlee minuit suñu oto paan parce que dañoo jaawale gasoil ak essence bu ñu ñëwee ñu xam ne dëkk bi gën a jege Jurbel ñu ànd génn dox ba ci buntu bi oto jëlee ñu fa jëlee ñu fa yóbbu ñu. ba Diourbel fanaan ci saalu saa di def ci kon defe naa ne tey soo ñëwee fii tey ñu def la ministre de la jeunesse dinaa fàttali fàttali ko loolu parce que engagement rek moo waraloon loolu la ministre fii bu ñu mënee ràññee tey nag politique ak budget moom defe naa dana ci kontaan ndax ñu fiy ñëw di wax yépp defe naa ne budget bi taxu leen jóg ñu fiy ñëw di wax bu leen budget bi taxoon na jóg ci ministre

wax naa foyer des jeunes yi nga xam ne tey moo nekk ci Sénégal dañ war koo réfectionné war koo defaraat ba mu baax war kaa équipé waat ndax tey département bu nekk rek defe naa ne doléance boobu am na rawatina nag département Pikine CDEPS bi yàqu na bëgg nañ ne defaraat ko mu baax bëgg nañ nga équipé ñu bu Malika gaspoirs yi bëgg nañ nga ko mën a bu baax loolu nag ma defe naa ne xaalis ma koy def kon ñu bàyyi ko

du la mën a joxe defe boo euh, amee euh, danañ la war a encouragé danañ la war a